ñaari fukk ak juróom-ñett test yu ñu ree ñu xam ne jot nañ ko téeméer ak fukk ñoo ci positif ci ñooñu juróom-ñett fukk ñoo ci cas contact mooy maanaam ñi joxasoo woon ak ñi am u ñu yore doomu jàngoro ji am na ci benn cas importé bi jógee aéroport international Blaise Diagne foofu lañ ko enregistré

Bargny am na benn Allée des Centenaires am na benn Diamniadio am na benn Fann am na benn Xombol am na benn Liberté am Liberté 2 am na benn mbuur am na benn Mermoz am na benn Wokam am na benn Popenguine am na benn Yarax am na benn Yëmbal am na benn zone B am na benn ci ñi nekk hôpital mun nañu wax ne que tey juróom benn fukk ak juróom ñaar am nañu tan ba dinañu génn allah fanweer ak juróom ñett ñu ngi ci réanimation yi ñeent doomu aadama ñoo jot a génn àdduna dem alxamis ñaari fan ci weer bi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal seen bopp di leen ñaanal yàlla xare leen ajjan malade yeneen malaat yi des ñu ngi am ten ci dalee bos bu njëkk ba tey bos bu ñu nekk senegal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñoo jot a am doomu jàngoro bi ci ñooñu nag ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn wér nañ téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal mbokk yi nga xam ne jot nañu seen yi nga xam ne seen mbokk jot nañu génn àdduna di ñaax askan yi ñu gën a sàmmoo ak digle yi nga xam ne il ñu wara a di sàmmoo ak yenn kàddu yi nga xam ne ministère de la santé mu ngi koy wax askan bi mu bàyyi ci xel mooy jël sa masque foo toll saa boo demee fenn fi nga xam dafa am ay nit ngeen fexe ba ki nga dendal lu tolli mètre dox seen diggante nit ñi aussi di sopp raxas seeni loxo malade yi tamit ñi nga xam ne dañoo ànd ak yenn doomu jàngoro yi nga xam ne dañoo war a dem ci seen rendez-vous hôpital yi ñu bañ koo fàtte jigéen ñu wóorul yi ak jigéen ñu ëmb yi tamit ñu topp mooy maanaam jigéen ñu ëmb yi tamit wala jigéen ñu wóorul ni koy waxee ñuy topp seen rendez ñu bañ a fàtte xale yi nga xam ne dañoo war a jot ci ñàkku yi ni mu waree ministère de la santé muy leen di sant di leen gërëm wasalaam.